en ce qui concerne le dossier judiciaire nga xam ne moo frappé Sénégal depuis mars 2021 démb dañu gis koo xam ne moo censé woon garder les sceaux qui sont les symboles de la République le ministre de la justice tàmm nañu ci moom mu nekk dans avec une mauvaise foi boo xam ne elle est manifeste elle est expresse jéem a manipuler l'opinion nationale et internationale mais boobu amoon na limite parce que da doon jël loi bi di ko interpréter à sa guise et selon la commande du chef mais cette fois si dafa atteindre beneen niveau boo xamante ne yegg na ci paroxysme bi maanaam ci ñomboxtal de la justice tàmm nañu ci moom mu nekk dans avec une mauvaise foi boo xam ne elle est manifeste elle est expresse a manipuler l'opinion nationale et internationale mais boobu amoon na limite parce que da doon jël loi bi di ko interpréter à sa guise et selon la commande du chef mais cette fois si dafa atteindre beneen niveau boo xamante ne yegg na ci paroxysme bi maanaam ci njomboxtal bi mooy lan premièrement dangay dugg ci loo xam ne nekkatul sa prérogative parce que ministre de la justice bi ñu la nomee dafa am décret boo xam ne mars 2023 la boo xam ni moo organisé ministère de la justice wax la yow lan mooy say attribution ministre de la justice nekkul mooy wax magistrat yi li ñu war a àtte ak li ñu warta àtte nekkul moom mooy commenter une décision de justice même su fekkee une décision définitive la parce que su boobaa dafay immixé wu en tant que kuy représenter la chancellerie bokk ci exécutif bi di dugg ci pouvoir judiciaire mais li pire mooy décision boo xam ne elle n'est pas encore définitive parce que y des appels la partie civile a fait appel Ndeye Khady Ndiaye l'une des co-accusés a fait appel donc c'est une décision pendante yow nga ne da ngay commenter décision di wax fan lañ ko teg donc loolu day influencer la juridiction d'appel li pire nag mooy nee na dafay dugg ci esprit wu juge bi maanaam moom mooy wax juge boo xam ne àtte na ba pare mais ba léegi décision bi disponible agul te décision nag ñetti wàll la qualité bi nga xam ne greffier bi moo koy def wax ñan ñoo àtte mbir mi composition tribunal bi nan la demee identité wu parti ak seeni avocat ak kañ nañ saisir juge bi ak ak fan lañ jaar su paree juge bi daal di def motif maanaam fan la teg décision après mu indi dispositif li génn keroog dispositif la c'est un prononcé ne lii lañu ñu àtte mais juge bi tant que génneegul décision bi cour d'appel mënagul statuer moo tax même kuy def appel bu demoon def ko ci cour d'appel greffier bu cour d'appel dafay demander greffier bu nekk ci tribunal de grande instance ne ko indil ma décision bi avocat yi su ñuy plaider en appel procureur buy def réquisitoire en appel moom procureur général lépp ci décision bi nañ koy basé donc ki nga xam ne nag moom moo rendre décision waxagul fan la ko teg ministre bi génn ne moom mooy wax sénégalais yi décision bi fan lañu ko teg ma koy laaj nag ce que loolu tekkiwul ne décision bi décision wam la et juge bi dafa ñëw rek liir ko su fekkee loolu la na am courage wax ko sénégalais yi bi ci tegu mooy deuxième niveau bi nag mooy wax loolu wàllu waxut mais inventé ay décision de justice te dinaa ci revenir benn par benn dañu ko dégg mu ni ci ordonnance de renvoi bi nga xam ne moom la doyen des juges jël pour renvoyer mbir mi devant la chambre criminelle muy ordonnance boo xam ne elle est inédite dans les annales judiciaires mu ne ci ordonnance bi dañu renvoyer Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko pour pour corruption de la jeunesse mu ne loolu ci li liñ ko renvoyé woon la bokk ne daal di ne dem leen ngeen liir waaw yéen ñii nag comme jàng ngeen am ngeen xel mën ngeen a liir gumba woo leen nañu ànd ñu liirandoor dispositif bu ordonnance bi vu l'article 175 du code de procédure pénale décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière criminelle pour y être jugés conformément à la loi pour des chefs de viol et menaces de mort contre le premier incitation à la débauche diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième fait fait en notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023 fii da ngeen fay dégg corruption de la jeunesse kon nag de tailleur constitutionnel il est désormais passé à faussaire pénal de tailleur constitutionnel il est devenu falsificateur d'une décision de justice parce que ça c'est une décision de justice et c'est très grave ñu déggaat ko juge bi dafa disqualifié setalul Ousmane Sonko ci viol dafa disqualifié pour corruption de la jeunesse d'abord man dinaa revenir ci disqualification boobu parce que ñun jàpp nañ ne c'est une hérésie ni mu nekkee hérésie mooy disqualification mooy dañu am lu ñu lay toppee benn infraction bi la mais dafa am ay circonstances aggravantes yoo ko defee maanaam dañu lay toppee sàcc mais sàcc bi da nga koo ànd ak keneen muy vol en réunion wala sàcc bi danga nga koo def ci guddi parce que circonstance aggravante la wala da ko def avec escalade da ngaa tëb mur wala da nga ko def avec effraction wala da nga utiliser moyen de locomotion da nga utiliser oto wala moto c' est des circonstances aggravantes bu ñu demee ba ci biir gis ne nekkete bi ngay sàcc tëboo mur wala bi ngay sàcc naam timis 19 heures moo jot mais timis jotagul guddeegul ñu daal di disqualifier en vol simple loolu mooy disqualification mais toppee nit viol muy yàqtaan ne dafa forcer nit tourner fële ne la da nga def corruption à la jeunesse da ngaa ger ay nit pour yàq leen ça n'a rien à voir kon c'est pas la même infraction mais moom nee na disqualification ni mu ko firee moom l'agrégé en droit mooy juge bi nee na séq nañu ñoom ñaar waaye nag séq boobu moom tuddeewu ko viol li mu ko tuddee mooy da nga nax te fekk xale la woon loolu nag ñi wax sénégalais yi ne du dëgg c'est un pur mensonge parce que loolu la tudd bu ngeen demee tribunal ngeen def archive yi décision de justice yi ñu génnee yëpp yoo xam ne dafa am disqualification c'est la même motivation dañu naan attendu que les faits par exemple de vol en réunion initialement reproché à X s'analyse plutôt en vol simple s'analyse plutôt ça veut tout simplement diir que li ñu la doon toppee fireetul lii lële la firi bu ñu ko gisee lii la ñu wan te loolu juge bi nag mooy wane après en quoi corruption de la jeunesse am na li tax signifié wul conjonction sexuelle maanaam ñaan ñi dañoo séq parce que dañuy leeral pour sénégalais yi dégg mooy dañuy dem liiraat parce que tey dañu bëgg lépp leer article 324 bu code pénal alinéa 2 sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté au mœurs en excitant favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au en dessous de lage de 21 ans ça veut dire que attente au mœurs mooy délit bi mais soo defee atteinte au mœurs da nga ko def soit da ngaa favoriser wala nga exciter wala nga faciliter débauche muy benn wala nga corrompre jeunesse bi. dañ koy sànni parce que bu infraction moyen la pour nga def benn infraction élément constitutif la kon nag. mun nga favoriser wala nga exciter ay jeunes pour ñu nekk ci débauche tey bu la neexee nga tabax sa kër dugal fa ay xale yu góor ak yu jigéen ñiy caaxaan tu as favorisé tu a excité tu a facilité la débauche ils ont moins de 21 ans mais est-ce que yow da ngaa siq ak ñoom relation bu dee góor nga ay jigéen ya fa nekk bu dee jigéen nga ay góor ya fa nekk kon bu taxawee ne bu ñu nee corruption de la jeunesse mooy conjonction sexuelle encore il a déformé la loi mais il a décision de justice il ne il ne peut plus être digne de garder les sceaux qui sont les symboles de la République parce que le département de la justice c'est un département de souveraineté c'est extrêmement important